suñu borom yàggal ko fi lool damay ko wér di ko ñaanal bu baax eh, suñu xalifa di suñu bunt ci cheikhul khadim Serigne Cheikh jow Mansour suñu borom may ko mu gën fee yàgg lool gën a wér te nga naan la ko liggéeyal ko maamam ju baax ji suñu borom defal ko ci lu kawee njort ba mottali yëpp ba naal ay naali boppam ci barkeb cheikhul khadim waaye di ko ñaanal mboolem ay rakam bu ko defee ñu defé ko comme ni ñu ko baaxoo defé ci kanamu sëriñ bi bu siara je ab sëriñam ba ñew ñu timin ñu siara ko garal ko suñu liggéey xamal ko fiñ ñu ci liggéey bi xam bis bu mag bu tedd bi ñu ngi ñu ko ci siara bu baax ci turu mboolem fédération tasawuru sixaar yi xam ci ñoo nekk tuba ak yi nekk ci bitti tuba ak fep ñu koy siara bu baax te diko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lol te ko xam ne nii rek lañ ko baaxoo di defee saa su ne bis bi nag wax dëgg yàlla ñu ngi ciy ñu ngi ciy sant mbooleem koo xam ne si teew nga fi ak ci anam bi mu bi fi teewee anam bu man di doon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm dina suñu borom defal la tawféex bu baax ci barkeb Seexul Xadim euh, comme ni ko baaxoo defee daayira yi nga xam si euh, moom la fédération bi lëkkale mu nekk daayira yi nekk ci ay gox yu wuute moo xam ci biir dëkk bi la nekk wala ci bitib dëkk bi. dan daa baaxoo def bépp daayira boo xam si teew na fi boo ko defee ñu bind ko gaaral ko ci gaaral ko sëriñ bi ñu xam ne ñii ak ñoom ñii ak ñun ñoo bokk liggéey bi daayira bi si jiit muy daayira tasawur si xaar te suñ ci Anta Jaw jiite ko bi ci topp muy daayira tasawur si xaar Daaru Xudoos bu ndaw bi sëriñ Mansour Sey jiite ko bi ci topp muy daayira tasawur si xaar Asalem sëriñ Xuseynu Cuub jiite ko bi ci mooy daayira tasawur si xaar Gede sëriñ Maam Góor Bay jiite ko bi ci toppaat muy daayira tasawir si xaar polaaya sëriñ Modou Bey jiite ko bi ci topp muy daayira tasawir si xaar jannatu nahim sëriñ Modou Jaw ji sëriñ Modou Jaw ko bi ci toppaat muy daayira tasawir si xaar boobaril sëriñ Modou Seen jiite ko bi ci topp muy daayira tasawir si xaar saam sëriñ Cheikh Jaw jiite ko bi ci topp mooy daayira tasawir si xaar tindoodi sëriñ Maam Diop jiite ko bi ci topp mooy daayira tasawir si xaar caaween sëriñ Aada jiite ko bi ci topp mooy dayra tasawur sixaar marché mam Binta Serigne Mbaye Nguer jito ko bi ci toppaat mooy dayra tasawur sixaar Lansar Serigne Ibrahima job jito ko bi ci topp mooy dayra tasawur sixaar ndamatu soxna mam Jaara Pen jiite ko lii mooy fukki dayra ak ñett yi nga xam ci ño nek ci biir Touba waye teewut ñu and ko international bi nga xamne ne yi moom ku nek xamne ne fen serigne bi nam koy waxawon fepp fu ne nek euh, ak jàppandale si jubloon ñu xol la gëna yomb ci ñom ñu def ko moy ñu defé ko ci bërepp yéen ya nek kenn ku nek fa la jégué na ngeen ta mbolo nek fa ngeen sosé ko ngeen sos ko te def ko fofu te lepp di ben rek mooy waye liggéey bi nga xamné ne euh, daayira suuri Sixaar Italie sëriñ Modou Diop moo moom moo ko jiite daayira Tasawudu Sixaar Espagne serigne matiam sar jité ko daayira Tasawudu Sixaar arsantil serigne Mansour moko jité jiite daayira suuri Gambie serigne abdullah Fall moko jité daayira Tasuri saxaar Dakar Serigne sangu Diop jiite ko daayira tasawur saxaar nga jalem soxna aram say jiite ko Tasuri tasawur saxaar kër Maajoor Serigne Gallo say jiite ko daayiratu tasawur saxaar Bustaan Serigne Abdou Khadir Faye jiite ko daayira tasawur saxaar Côte d'Ivoire Serigne Serigne Serigne Fadilou Diaw jiite ko daayira tasawur saxaar Touba Mboul Serigne Abdou Sama jiite ko daayira tasawur saxaar Warasugi Serigne Alhaji Mor Sama jiite ko daayira tasawur Danki sëriñ Xaadim Fall jiite ko daayira tasawuri sixaar jawee jaw sëriñ Mor Diop jiite ko daayira tasawuri sixaar ngin gi neew sëriñ Mor Yadd jiite ko daayira tasawuri sixaar kokki sëriñ Madun Pen jiite ko daayiratu tasawuri sixaar eh, birisil sëriñ Biraan Fall jiite ko daayiratu tasawuri sixaar càlleen sëriñ Jaate Sowru jiite ko daayira tasawuri sixaar moxmo sëriñ moor Sama jiite ko daayira tasawuri sixaar tàkku bisaab sëriñ Pambaj jiite ko daairatu daairatu tasiru saxaar Tamba Serigne Youssoufa Sall jiite ko daairatu tasiru saxaar Ngijaan Serigne Sayar Jaw jiite ko daairatu tasiru saxaar daa Rahman Jaw Serigne Abdoulahi Yaadi jiite ko daairatu tasiru saxaar Kantiyeen Serigne Masamba Thiam jiite ko daa tasiru saxaar Jumaada Serigne Cheikh Bara Fall jiite ko daairatu tasiru saxaar Mbuur Serigne Masay Suur jiite ko lii mooy fukki nyar ñaar fukki deer ak juroom yi nga xam ci dañoo genn ci biti dëkk bi ba tey sëriñ bi ñi ngi la koy ngi lay ak ñun ñoo bokk liggéey bi lépp di benn di ñaan bu baax suñu borom di ko ci yéen ngeen ñaanal ñu bu baax suñu borom gën ñoo kàttanal gën ñoo defal ba lépp loo xam si mebel la seeni mebel la ngeen bëgg ko ak ci fànn gu mën di doon suñu borom defal ñu ban ban defee ko ni ngeen ko bëggee ñu ngi koy sàkku bu baax di sant nag mbooleem koo xam si teew nga fi ak anam boo fi mën di teewee di sant ko xam si japp nga japp nga ci liguey bi ak anam bo ci mën jappé ñi ngi lay sant bu baax ci touru fédération bu Touba bi ci sama cadeau way seen turu ñom ñëpp ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan bu baax sëriñ bi yàgg fi wër lool suñu borom defal ko tawfeex ak eh, jëri ñi nga xam si ñom lañ andal liguey bi yëpp yëpp ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di wax alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñaanal suñu sëriñ bi suñu yaakaar ji sëriñ Cheikh Diaw Mansour ma ngi ñaan ci barke Cheikh Mouhamadou muntaha boleh mouride yi niñ tégué bët ñaan gu nanguk serigne muntaha gi ñaanon ci bisu xasida yi ndox mu bari tànd ak jamm ñepp tek ci bët ñun ñepp yal nañ tek bët lolu serigne bi mu dellu ci katan ngeeg wër gi ba ci siwaat ci liggéey bi ci barke alxuraan ci liggéey bi ci mi ni jotaay bi di bi ñu ñaanal ak mboolem rakkam yi ñu fi borom defal tawfiq ba li yéeneen ànd ak liggéey seen si Jom ko dañ ànd koog ñoom ñun taalibe moom la mukk waaye ku ne ku nekk te rek da nga jubóog Serigne ndax moom ci dëgg rek lay wax ci lay ci lay xëy ci lay gont yàlla na ci suñu borom moo nag moo jiite fédération internationale bi nga xam ne mooy fédération bi nga xam ne moo yilif mboolem kër bay Serigne Diop Mansour bi ñëpp te Serigne Santa doon jëwriñ ji di président d'honneur ba Serigne Mame Gor Diop doon président actif ba mu ne mi di sant baax waa Touba gi nga xam ne ñoo doon taxaw gis bi ci sellal gi nga sellal ak góorgóorlu bi ñu ci def ak pëstif bi ci waaye di sant baax mboolem képp kuy wuyoo yow rek foo mën di nekk nee ñu yàgg la ak liggéeyal Serigne Touba te Serigne Touba nangu ñu nee na mi ngi ñuy soññiwaat ñun ñëpp di ñu fàttaliwaat liggéey bi nga xam ne moom lañ ñu ko seddu te liggéey bi nga xam ne moom la fi Cheikh Mansour Diaw nekk la doon déggoon mooy saa bu Serigne bi bëggee rek la bëgg mu ko loolu nag ci la fédération bi di dox nee na mi ngi fàttaliwaat ñëpp ne leen boobu mooy fédération bi nga xamante ne bii ci ndigalu sëñ bi rek lay dox kon jiite mbooleem loo xam ne rek jaww lay ñëw su ko defee fédération bi nga xam ne moo féete Touba nag moom moo yilif li boobu moom nga wax fooy jaar ba bokk ci loolu nee na mi ngi koy te di leen sant yi ñëpp nee képp kuñ tudd kuñ tudd nag képp koo xamante ne bii moo xam foo mën di jógee ci ci réew mi wala ñu mënta ñëw sax it nee na ñëpp ñu ngi leen di ñaanal ngërëmu Sëriñ Tuubaa yàlla na ci suñu borom boole gannaaw loolu itam mu ne woon ñu fàttali leen tuuti rek ci groupe bi nga xam mooy groupe WhatsApp waa Kër Baye Serigne Diaw Mansour mboobu itam te Serigne Mouhamadou Diaw Mansour doon kilifa ga muy président d'honneur ba Serigne Sang Baye Mbaye Diaw leen président actif ba mboobu itam ñu ci yu gàtt rek ñu leeral leen bi mu sosoo ak léegi ñi fi a ci atum 2016 assuré ñu tàggu woon Serigne Cheikh Ndiob Mansour mu jox ñu ci ndigal nañu ne ngeen fexe bu leen wax wala ngeen def ci lu ñuy xeewi kër gi loolu is incha allahu fi jot a liggéey rek dañ di tënkal daal di joxe kàddu gi incha allahu taala ba ci njëkk mooy miir bi nga xam ne moo nekk ci buntu kër Baye Sëñ Ndiob bi fédéral groupe euh, whatsapp waa kër Baye Sëñ Ndiob Mansour bi moo ko defaroon mi ngi ko defaroon 957000 francs la ko defaroon su ko defee magasin bi ci bunt kër bi itam ku dugg ci kër gi ñëpp teg nañ seen ba ci lañ denc bagage yi groupe bi itam moo ko financé woon mu toll ci 1 million 153 mille 650. su ko defee itam jëndoon nañ ay type yoo xam ne dañ cee bëgg defar ab bâche incha allahu taala loolu ñu ngi ko jëndee woon 300 su ko defee itam euh, euh, jëndoon nañ ak table mixage itam ak ay bâche yoo xam ne ñu ngi ko jëndee woon 491 mille 125. ñu jëndoon itam ay ay ay bassin yoo xam ne ñu ngi ko jëndee woon trois cent quarante mille jëndoon nañu itam ni ma ko waxee ñaari caméra yoo xam ne ñu ngi ko jëndee soixante cinq mille kiwo bi nga xam ne itam moo jógee fële ca gannaaw këri ba moom daaw lañ bi ñu ngi ko financé woon cinq cent vingt et un mille cinq cent barabu Cheikh ni itam biñ koy yeesalaat ci WhatsApp bi barkeeloo ne ci cinq cent mille ren jii itam bi ñu waajal màggal gi groupe whatsapp itam barkeeloo na ci daayira bi ay bool ak ay palaat ak ay basan yoo xam ne ñu ngi ko financé quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille su ko defee 2016 ba léegi li ñu ci financé lépp mi ngi doon ci quatre millions huit cent vingt woo képp ku yaakaar jaww ni ñu ciy bokkee nag ñu ñëpp xam nañ ko addee yoo xam ne bu dee góor cinq mille lay joxe bu dee jigéen deux mille cinq cent képp koo xam ne itam xool na sa diggante ak sa borom xam boo ci bëggee barkelu incha allah boo dikkee incha allah daañu wax nooy jaar ba barkelu su ko defee sëriñ Mbacke Diop ak sëriñ Mbacke Diop Mori Sadikh ak sëriñ Ahmadou Diop ak ñi mel ne ñoom ñooñu nekk Touba bi ñaanalaat sëriñ bi mu yàgg fi loolu tëgër ci barkeb alxuraan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jullit yi ñuy teewlu mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Cheikh Diaw Mansour. ci kaddu serigne khadim jauh, mi nga xamne moy jawrinam di len sante bu baax ci bis bu tedd bi nga xamne moy mooy bisu Seex Ahmadu Bamba khadim rasoul serigne kita lebih, Mansour wax ne mi ngi nuyu mbollem yeb ak fuñu man di nek xam ngeen ne bis bi su masaan na ñew buñ démé ba waxtu takusan sëriñ bi di sëriñ Cheikh ay rakkam ak njabootu euh, sëriñ Abdou mbay gap seen gep ñu and dem ci kanam sëriñ ba joxé siyar ren ji nag kenn ku nekk gis na ni jamono ji demee ci ay xat-xat ak taw bi ni nga xam ne ni mu def mbedd yi mu yërëm mbooloo mi ci àndandoo bi ngir dem siyaare ji sëriñ ba ba tax na mu jëloon ay ndaw yabaloon leen ci sëriñ Moustapha Mbacke Mohamed ndaw yooyu bay Sayer jaw mom bay Sëñ jaw Mansour moko jité won ak Serigne Bara jaw ak bay Basirou jaw mi nga xam ci jawri ni kër gi la bok ak Serigne Cheikh jaw ak mbooleem ñi nga xam ñom lañ ko àndaloon muy commission sécurité bi di Serigne Mbacke Diaw Serigne Mbacke nga xamne ne ci njabootuk serigne Abdou mbay moy seen kilifa jëwriñ serigne khadim biñuy dem mom moñu ñu mujj jottali ay cadeau yo xam ne yu ko serigne bi jox la mu ne fi jamono tollu ak nawet bi ni mu demee ak yoon wi ni mu mel mu yërëm mbolo mi ci dox gi dem ak ñew mo taxoon mu nañu na ngeen and ci ndigalu serigne bi ngeen dem yobbu ci serigne ba àddee sëriñ mustafaa Mbacke Mohamed ba nu àggee toog nañ dir bu gàtt luy toll ci juróomi minit gën gaa bari fukki minit mu yëg ñu yëglu ko mu ne nanu ko xaar ñu fekk fa ay ndaw yu jóge kër sëñ Modou Aminta Fall muy sëriñ Fallou Fall ak sëñ Moustapha Fall Mbar waa kër sëriñ Massamba waaye ak yeneen section waaye teewul bi mu yëgee na njabootu bay Serigne jaw Mansour ñëw na la mu jàppoon da ko bàyyi ngir gisee ak noonu loola ab cër la bu mu jox kër gi Serigne mustapha Mohamed ba ñu ko nuyoo ba noppi wax ko délégation bi ñu àndal ma ne ko Serigne Cheikh Diaw Mansour nee na mi ngi lay nuyu. te di la ziyaar ci bés bu tedd bii mu ne maa ko doon laaj léegi Abdou Fatah mooy sunu rakk ja fa nekk te ci moom loolu la ma wax maa ko ko doon laaj léegi ma ne ko waaw ma nga fa mu ne ma ana nu mu def ma ne ko Mbàkke ma nga fa rek te nekkal la fa ne ko sëriñ seex nee na mi ngi lay ziyaare di la jottali ziaré mbooleem njabootug Cheikh Mansour Diaw gépp fedd feddali sunuk laxasaay ak sunu talibé mbacké sëriñ bi néna nga fa ñanga fa nok mbacké sëriñ bi néna ñanga fa nekkal la fa no nga fa nekkal la fa lool la ko wax mbacké sëriñ bi néna fa nekkal la fa di déglu sa ndigal mu ne ma waaw bax waaw bo démé nga nuyul mako bu baax te santal mako te nyana, mang koy ñaanal daal di tàllal loolu yi wax bo demee nga nduyul mako te santal mako te mang koy ñaanal yakarna doyna ndax duma ci yok dara non la mako waxe sëriñ khadim it dane ma la la sëriñ bi wax wax ko bo nga nuyul ma Cheikh te santal ma ne ko mang koy sante bu baax te ne ko mang koy ñaanal kon melna na ne rek la ab taalibe di wut ci sëriñam mustapha fédélé wan na cantuk sëriñ Cheikh te bu santé sëriñ Cheikh njabootuk Cheikh Mansour Diaw gep la sante ndax sëriñ Cheikh ay bopp bi biñu diké dikkee jaar ci sëriñ khadim nañ démé won ma dem ci bi wax ko la ko Cheikh mustapha wax dañuy sant yàlla nag ndax bi sëriñ bi wax ak ñun bi ñuy dem dafa tëdd te biñ dikkee dañ koo fekk toog kon mel na cantuk sëriñ bi jut nañ ci moom ndax ba ñuy dem daa tëdd di wax ak ñun waaye biñ dikkee dañ koo fekk mu toog di ñu xaar kon loolu rafet njot ci ab taalibe man de alhamdulilah laay wax sëriñ cheikh it kanam guy belli lañ fekk ci moom mooy mbégte mu jóge ci sëriñ bi jiituñ ci moom ba ma ko waxee li ma sëriñ bi wax ba noppi kon dama leen di jottali kàddu yi sëriñ seex jaw Mansour ji taalibe bay bàyyi sëriñ Diaw Mansour ak Cheikh Mansour jaw sëriñ Cheikh Diaw Mansour nee na mi ngi leen di nuyu te di leen sant te di leen gërëm tey sàkku ngeen ñaanal ko mu jóg ba mën a ànd ak ñun liggéey bi loolu la ma wax de maa ngi sàkk mbooloo mi nañ ma ñaanal ma jóg ba mën a gën a ànd ak ñoom liggéey bi ma ne ko jaw noo ngi koy ñaan te di ci rafet njort ndax sëriñ bi tudd na ko nee na it mu ngi sant ñëpp cant gi nag da koy tàmbalee ci sëriñ xaadim mi nga xamne dako doylo Muratal te diko deglu mu Mansur rotal ba ci mbollem njabotuk bay seigne jëw Mansour gep muy serigne mohamedou Diaw serigne Basirou serigne Mamor serigne Bara, serigne Sayer ba ci suñ dom yi serigne Cheikh ak ñimu andal ñep genn kaddu melna xel benn bët ñaari tànk wenn yoon muy sëriñ bi loolu rekk mooy yitte ji sëriñ Seex wax ne mi ngi sant mboolem mbokk yi taalibe yi ak fu ñu mën di nekk ndax màggal gii ku fi ñëw xam ne liggéey bi soppeeku na te pas-pasu ñu ko yor rekk la muy sëriñ maam góor ak ña àndal ca bitim réew sëriñ màggasee tudd na leen léegi ak mboolem fu dëkk nekk ci biir réew mi ren ji daayira yi dafa yokk yokk bu jéggi dayoo sas yi koo sas benn mu jox la ñaar jamono ju naqar xam na ne feeñ na ndax bayeer du sama yokk na waa kokki yokk nañ seen sas waa ngajalaam yokk nañ seen sas kon mel na ne mboolem fu dayra nekk wàccan leen mboolem fu dayra nekk ña fa nekk yokk nañ seenu sos waa Daaru Njaay ak mboolem fu dayra nekk loola nag ak ñaan gu nangu la kon mbokk yi damay daal di wàccee kàddu yi ndax sëriñ bi cant ak gërëm rek la ma def loo neen mbooloo mi sant naa leen gërëm naa leen nanu rafet njort ci seen bopp maa ngi leen di ñaanal di sàkku ci ñoom ñaan sëriñ bi nangu jëf sunu liggéey yàlla dëppoog lay bëgg-bëggam nun de leer na ne bàyyi sëñ jëw Mansour mbiram yeesal takk ci jëfi sëriñ Cheikh Diaw ndak ay rakkam ak taalibe ndax Pastef ku ci ak pëstéef biñ ci andé won ak melni xel miñ ci doon doxé ak diisoo biñ ci doon def ngir bis bi jak nga xamné ne luñ ciy wax ak luñ ciy dox moy képp ku fi ñew bég la ngay ñaan suñ borom defal lako sëriñ bi sédé nako ko nak ak cant la kon nañu soññaat suñu bop bu nu fi joggé groupe whatsapp bi na ci ñepp bokku taxaw ci fédération bi limi doxal fu talibé nek nga bayé ko xel té def ci saw ñak lima mëna wat moy buñu dajé ku nekkut suñu biir ya nga ci suñu gannaaw té dab ñu rek ngay bëgg def fu mbolo nek ak mu man di doon dajé ngir ndigal na rafet ñortu ci seen bop sëriñ bi dana leen wétali ànd ak kenn ku ci nekk ci sa jëf mottalil la ko kon nanu jaajuwaat fexe am baas bu ne boy buñ moomal sunu bopp mën nañ ko de mën nañ ko na kenn bañ a xeeb la nga cay def man de fii laa koy tàmbalee ñaari junni danaa ko ci joxe ci baas bi mi ngi ni seigne màggat say am bass bi mourid yi baas ba ngi ni ñu tambalé ko ngir Cheikh Mansour Diaw kep ko xamné aljana Cheikh Mansour Diaw ja ya ko Sëriñ touba digal denk ko ko am nga ci xemem teef ngeureum lila la bàyyi Diaw Mansour yobalel am nga ci xemem teef Cheikh Diaw Mansour mi fi ne lim lay digal sa xemmemteef mata na ci seuk li nañ ci taxaw déwén nan ñaan yalla fekke ko te am bass bu ne boy bass bu ne boy wallahi ku ci jitu ken dula jot ken nañu sas sunu bop ci serign bi bàyyi señ jaw dafa liggey ba wacc taxawulut birig ak moromam amut dara léppam sëriñ bi la ko jox ndam la ko seex Mouhamed Mbacke defal ndam loolee sëñ maam Mor dana ci ñëw sëñ Mbacke soxna loo dawal otom ba ci kër gi mu ne ki fi jóge fii mu jóge bàyyiwu fi ku ko gën fa jëm du ko fa fekk ka ko liggéey liggéey na sëñ Moustapha mbay Longoor moo nekk ci barabu sëñ Modou Moustapha bee di ko garde nee na ma bàyyi sëñ njaw li ma ko gis bëriwut waaye maa ko gént biig ci njowaane urus ak jamaa nañ daanu ci poos nañ daanu ci poos nañ daanu ñëw leen ci baas bi jaayante yi ñu tàmbali ko ndax li dañ ko luyé ñeen fukk junni ak juroom mom lañ luyé bass bi war nañ ko jombalé suñu bop kër guy joxé adiya di tabax kër kër gi señ cheikh Jaw mujj tabax ñaar fukk million ak juroom ñaar la ci def kenn ku ne def ko saw ñak te yego ñu soxla bass bu wara tollu ci 1 million mënuñu ko am ñun ñoy ñan ñi ngi yor ay ay kër yo xamne kenn ku ne salle de bain sans ba ngay sango rek 200000 cent mille lay jar te mënuñoo def ci sëñ bi lu mëna yir mbolo mi liggéel sëñ Touba Cheikh Mansour Diaw jotaay bi bay sëñ Diaw nga ni suñu kanam taxaw mi ngi ni tok suñu bir wallahi ku tek ci sa bët ñi di jabatu bay seigne jaw barke alquranul karim sa aajo dana faju yuux yi neex na lool nañ daanu ci pos nañ daanu ci pos nañ daanu ci pos nañ daanu ci pos xam nga limay wax bay Bass Jaw mi man nako sédé bay seigne Jaw Mansour dafa tok ci digité jakka ja ak buntu kërëm tok bu mu jagg mu yëngal bopam ne ndokk bañ ci jito fi lu yalla defal tranga dañ fi ñew bustan jaw lay wax de gam sañtal bopam dar rahman jaw fi lu yalla defal tranga doomu adama dañ fi ñew yaakaar naa Daaru Rahman fi mu toll nii lu doomu aadama yi soxla ci kaw suuf am nañ am nañ ndox am nañ courant am nañ poste de santé am nañ bànk te yeneen a ngi ñëwaat jàkka jumaa dañ fay def sëñ Seex Jaw da cee roy sëñ Moodu Moustapha ba mu ko nattee aw yaramam sutante muy dem mbar xaw ma Kolobaan bi mu taseeg ñun yaakaar naa maag sëñ Mor ñun ñoo ànd dafa ñoo woo ba mu ñëw mu ne sëñ Mor bu ngeen demee la mën na toon ngeen yokkaat ci lu nekk fukki mètre mu nekk ñaar fukki mètre ak juróom ma rayee ko sëñ Modou Moustapha Darou Ndiaye la ñu ko waxee wa daan na la maa ngi nii sama yoran di rex rexaa waaye bu ngeen demee la mën na toon na ngeen ko yokk sëriñ Seex fitu gaynde la yor jëfi gaynde lay jëf mbokk yi Sam Jaxate mooy kër gi njëkk liggéey def ci ñeent fukki million ak juróom benn bàyyi sëñ jaw juróom benn million ak juróom benn fukki junni la fi bàyyi ñu dem niboo ji te kër kërug Sam Jaxate gi li ci gën a yéeme moom la sëñ Sidi Mokhtar njëkk a def kër sëriñ Serigne Touba sëñ Sidi Mokhtar xalifa général suñ bâtiment bañ doon liggéey ci la waccé liggéey fa lañ ko sangé yóbbu ko fé ci guuy mbind ci penc ma bañ fa joggé sam ja niboo ji njañ-njañ ci bopam moma wax mak señ yàdd ne ma sëriñ bi day liggéey bi da doon sét kum koy jox tok nañ fi ba tay ne ko jox señ diw mu ne duma ko ko jox kérok bam ko joxee señ Cheikh mak bay bass jew mi ñuan ak señ Cheikh dañu dem señ bi nañu xaar leen mo ma ñew señ Moustapha ci bopam mo ne xaar leen mo ma ñew daan na señ Cheikh kay dugg ak mom ci bir kaskare bi ma nga yow aw naaru góor ci penku ndeyjoor mak bay bass ñu tok di wër naaru góor wi diko xol moo ko sëriñ seex moo ko sëriñ seex ba def fa lu mat ñaar fukki minute ak juróom bi mu génnee ma daw song ko mu ne ma dema ci sëñ seex mu ñaanal la bàyyi basa ngi nii taxaw am na seere biñ génnee sëñ seex ne ma sëñ Moustapha kër la may liggéey loo loo ci xam ma ne ko xanaa dem tuubaa daal di woote mu ne ma wol sëñ Xaadim ak a xam fa muy jaar ma woo sëñ xaadim mu ne ma woo sëñ mu daw ak ñoom sëñ moor ne leen nañ ko seetu bu baax sëñ bi damaa jox ndigal xam nga li gën a neex mooy xam li nga yor te xam fi nga koy jaarale sëñ Moustapha bañ fa jógee maag Baye Bas Jaw ak sëriñ bi sëriñ bi di rek te man wóor na ma ne booba yur trois mille ci poosam waaye bi ndigal li dikkee xam na ne yàlla nag yëg na ko fi mu toll nii moom ci yàlla lay dox waaw pays yi muy dox pays ndigal la garaate murid saadax yaa ngi lëmbaaje ci ay mbaggam bàyyi sëñ jaw jege na ko lool waaw mu bëgg ku ne am dara mu daal woo sëriñ bas ñu daal di jànq naaju tàng jër dem ni boo ji dem wër liggéey bi bi ñu noppee sëñ bas daal di aalu ne kenn duma ci man ma fas sama xol ne kenn duma ci man keneen def ko keneen def liggéey booba def nañ ci 65 cinq ca la sëñ Moustapha Mbacke dëkk am na mag mu ma fa nettali ne ba kaskare bañ fa njëkk def bàyyi sëñ jaw ma ko bàyyi sëñ jaw Mansour ko fa defoon ak sëñ Modja assad ak seigne Moustapha gay booba seigne mbacke Soxna Lo mo fa nek mak momo ba mu dikkee dana len guru yalla yi seen tenk yi fi lañ koy tege guru yalla yi buñ demee ba waxtu wi reñaan seen tenk yi fi lañ koy tege ni boji non damay faral di wax ne digënté ak Serigne Touba càllala gu gatt la seigne Mor dana ci ñew càlla bu gàtt ñaar ñoo dox suñu diggante ak Serigne Touba te sax kenn la ndax Cheikh Mansour dafa joxe dundam ak roxam addiya bàyyi sëriñ Jaw Mansour Serigne Touba leewu ko ci ay loxoom ñu boppam la ko tuddee ñu ne sëñ Jaw la ko tudde waa nanu xam li nu am baas bi bu leen ko fàtte jaayante bi nañ ci ñëw ñi ci bitim rew nañ jokkook sëñ magat sey wala sëñ mbàkke job wala jëru ni daayira yi ku ci man yëkkati ko rek kon no ngi sant ñëpp talibé bu doon wax ak ay mbokki talibém day melne ko xawa jall lo rek la kon kenn ku nekk fa nga tok nga jang fatiha bu sel jang ayatul kursi yi jàng fàllaxi jàng naasi tëje ko salaatu ala nabi boo man boo ma nee salaatul faatihi baax na bu ko defee ñu ñaanal ko sunu boroom subhanahu wa tabaraka wa taala mu defal ko ak bëggam waaw na kon nañ jëfe ndigal loolu ba noppi ndax dafa sàkku ci ñun ñaan kon nañ ko ñaanal te ñu fas ci rek sunu borom defal ko ak bëggam lam bëgg moo ko xam bismillah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 asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. E, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci kàddu njabootu waa Kër Baay Serigne Diaw di leen sant bu baax te di leen gërëm ci seeni taxawaay ak seeni jëf ak seen ngëm ak seen pasteef ak seen fulla ak seen fayda ak seen bëgg lu baax gi nga xam ne moom ngeen dajale yooyu yëpp ngir jëmbat ko suuxat ko ci biir kër Baye Serigne Diaw Mansour di liggéey liggéey bi ba liggéey bi agsi fii lépp gis nañ ko sonn ngeen lool waaye nag ci ngeen di sonnal am na pay sonn ngeen lool dara umpuñu ji maa ngi ko doon waxtaanee ak euh, benn mbokk taalibe léegi rek di ko wax ne ko maa ngi koy wax ne ko xàmmee nañ taalibe yi bu baax xàmmee nañ taalibe yi wax wala bañ a wax waaye xàmmee nañ taalibe yi benn taalibe ump ñu ci ku ci ne rek xam nañ la xam nañ sa pastéef xam nañ sa pas-pas xam nañ sa taxawaay gi nga taxawee ci biir kër gi dara ump ñu ci dara ump ñu ci amul kenn koo xam ne fa nga nekk lu mu ruqe-ruqe bu defee ne mukk ne ump nga ñu xam nañ ñëpp lan xam-xàmmee leen xàmmee nañ pastéef yi bu baax gis nañ pastéef yi tim bu baax ñu ngi leen ciy sant te di leen ci gërëm waaye ki ñuy liggéeyal kooku am na fay ñun dey ñi nga xam ne ñooy jabootu Baye Serigne Diaw Mansour ñun amuñu ñaari jëmukaay amuñu ñaari kilifa amuñu leen ni ñaar benn dong lan am muy Serigne Cheikh Diaw suur kese lan am fu mu jëm foofu leen jëm lu mu diglee loola lañuy def lu mu teree duñu ci gis duñu gis ci lum ñuy tere sax ñu ngi koy ñaanal sunu borom subhanahu tabaraka wa taala mu wéral ko yëkkati ko mu ànd ak ñun ak liggéey bi ba yóbbu ko fu kawe njort liggéey na lool comme ni ko sëriñ ax Axma waxee ci toolu Baye sëriñ Jaw Mansuur bi ñëpp teg ci seen bët yokk na ko téye na ko yal na ko suñu boroom téyel boppam te yokkuwal ko aw fanam bi barakati Seexul Xadiim ki nga xam ne nag moom la ñuy liggéeyal tàmbalee ko ca seexu naa Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasuul mi yoroon ndab lu rëy li nga xam ne ci la doon tibb di seddale ka jaayante woon ak moom di Maulana Cheikh Mansour jaw dikk jaayante ak Serigne Touba jaayante bu mat sëkk te bam jaayantee desewu dara aslamtu nafsi bi duuni labsi li xayri insi sayqu zamani aslamtu kulli jébbale naa sama lépp koo ko jébbal li xayri xilli gën ji xarit azala kabli bi ma jéeg buloo rek la dagg samay jéeg sayqu zamaani sëriñu jamono ji kablu nag danga dégg sëriñ Tuubaa di wax naan xat fakk kabla xat ba sa fadola fa dur wala wa nafu jaay al kablu mooy jéng góor yàlla yi dañoo am ay jéng yoo xam ne dañ koy dagg mu def ay aqabaat mu boo xoolee ca masaalikul naan suñu tubaa nga cee wax naan munoo dem àgg ci suñu borom mukk te jéggi woo ay aqabaat muy ay difficulté jafe-jafe moom ngay jéggi ngir war a mën a dem ci suñu borom jafe-jafe yooyu nag mooy mooy kubal yi mooy eh, jéng yooyu jéng yooyu nag moom ngay jéggi eh, ci maqamaat yi nga xam ne yaa ngi koy jaare ci maqaamaatul yaqiini eh, ci tarbiya ci tarxiya ci tasfiya ci tazkiya ngir mana a ngir mana dem ci sa borom subhanahu wa taala jataay bi dafa xat waye kon lepp dama koy sobu ci bir tasawuf ñu xam deug deug fi ñu sëriñ tubaa jaaral waaye nag du ñak benen yoon nañ ci def amé li waxtaan waye kon dañuy gattal waxtaan di len xamal ne dal njabootu bàyyi serigne jaw mansour gi sant nañ mbooleem taalib yi ci seeni taxaway gërëm nañ leen tim ndax gis nañ lépp te dara ñu ci waye kiñ koy leggeyal amna pay kiñ ko leggeyal amna pay lu mu waxoon Cheikh Mansour Diaw lu mu waxoon ajaba ilahu al-arsi ibn muhammadi du'a'i wa qad a'la janabi bila suqti amna feneen fo xamne ma ngay wax alhamdulillahi lazi li yasara bi al alxadimi ma taasara li jafe woon góor yàlla yépp ñu daw di ko wut kenn ku nekk dart dart sonn bay bëgg dee mënoo caa jot dama ne bëreet suñu borom yëkkate ko teg ko ci sama loxo kon mu ne alhamdulilahi lasi li yasara maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ma yombalalal alhamdulilahi lasi li yasara bi xormatil xadimi ci xormay cheikhul xadim maata asara la jafe li jafe ba kenn xawu koo mën a am sax yàlla yombalal na ma ko ci barkeb Serigne Touba mu ne yassara lil matluba wal muraada bila anain wal munaalixaada yassara lil matluba wal muraada li ñuy sàkku ak li ñuy mébét lépp yombalal na ma ko bila anain te lu ant ak benn cooda wal munaalixaada samay mébét yépp indil na ma ko samay mébét nag mooy balaa i wa ashqaami li xayri bihin tafat kaman tafatil akdaaru an nii wa an rahtii Cheikh Mansour nee na balaa i samay bala wa ashqaami ak samay raag li xayri bihin tafat yàlla daq na ko mu jëm feneen fu ci man kaman tafatil ak daaru comme ni mu dàqee nëx nëx yi an nii ci man wa an rëxti ak ci sama mbooloo sama mbooloo mbooleem gàkk-gàkk yeeg nëx nëx yi yépp ak musiba yeeg balaa yi suñ borom daq na ko jëmale ko feneen fu dul ci ñoom loolu Cheikh Mansour moko bind waxaat ca xasidaam ga muy wajjahtu khairul hamdi wa shukuri li khairi sayqin hamidin mashkuri man jada bi takrimi wa suuri wal amni wal i'la'i wa tafsiri madinatul anwaari wal khairu khadimi allah wal muxtaari muhammadul baki serigne touba sa'dul khalqi moy taxik minde fi man qad alana khulqan kal khalq ya xayra shaykhin jadali bil manni wa bi firashikal asimi sha'ni ha lima soxla nga Khat qutali bi ka jamiha qardi mbollem luma don mebe lepp tengo ko sama lo asmakallahu kama anta radi ne la yalla gëreme yow serigne touba yalla na la musale non sama mebeti aduna ak alakhirah sun borom tek noko ci sama lo koko nak kep ko aju ci mom kon na nga xamne sey mbir jagna tay te bu ëllëgé da fay jag bo xolé sey mbir nak ñaka jagadi defaratal sa bop te fasiyene aju ci mom buñ nax sun bop da ngay wax talibela te do talib dangay wax ci bokk te bokkoo ci ci bokk da ngay jëf li ñuy jëflu di def li ñuy deflu di bàyyi li ñuy tere njëlbeenu li ñuy deflu mooy jaamu sunu borom subhanahu tabaraka wa taala Cheikh Mansour ba mu tàllalee loxoom Serigne tubaat teg ci daf ne alhamdulilahi lasi ataani xayral muna wa min bala ni kon nag dañuy jaamu lu yàlla jaamu gu set wecc topp lu Cheikhul Xadim topp gu mat sëg di rafetal ci biir di rafetal ci bit li nga yéene sa bopp nga yéene ko ñépp lu yàlla dogal mu neex la loolu noonu yoon woowu foofu la ñu jaar tey loolu la ñuy jaar kon nag sëriñ bi nee na mu ngi leen di sant te di leen gërëm ah ñu ngi leen di sant te di leen gërëm ci seeni taxawaay ci wàll gu ci nekk ndax kat lu ne def ngeen ko jumaay daa raxmaan taxaw ngeen ci lu xew taxaw ngeen ci barabu Cheikh Mansour Diaw bee taxaw ngeen ci liggéey ko liggéey boo xam ne liggéey bu mucc ayib la dañuy defar barabu Cheikh Mansour Diaw danaa ko fi nettali dañuy defar barabu Cheikh Mansour Diaw bi radiyallahu anhu biñ dikkee ba ci ñaari koñ yi féete soow benn koñ bi féetee sa wetu càmmooñ muy wet gi féete gànnaar ci koñ boobu dañoo daaneel barab bi biñ daanelee barab bi ba noppi roñ mool yi ne nañ jël fondement bi fi nekkoon nañ ci teg rek yëkkati mu dem ñii ne déedéet buñ ko buñ ko ci teg nañ ko dindi ñii ne nañ ko ci bàyyi ndax barkeelu la ñu waxtaan ba ne kon léegi nañu gas koñ yi def ci ay den ngir mu dëgër ngir mu mën a yanu fon mu mën a yanu kuulaas euh, bi ñuy wala kuule ci kaw ñu juboo ci loolu ñu gas koñ yi ñeenti koñ yi di lu baax bi ñu gas ñeenti koñ yi ba gas ñett yee ba dikk ci bu mujj bii nii ma lay wax muy wetu sowwu gi boo dikkee ci wetu sowwu gi benn koñ bi féete gànnaar wallahi asim dañ koy gas di ko gas ba mu yàgg ñu fekk fa nit koo xam ne waxuma la moom ci boppam waaye mbalaan mi ñu ko sànge woon sax dara sikku ci te kenn xamul ku mu doon am na ñu ci teg seen bët am na ñu teg seen bët fii ci jataay bi laaj asim ah hmm. Mhm. waaw waaw mhm. waaw waaw mhm. nekk leen nu ko fa wax dañu biñ dikkee di defar barab bi la dikk taxaw ne barab bii de yàgg na maa seet yàgg na maa laaj kan mooy boroom ak ñan ñan mooy ak njabootam waaye mosuma koo xam bi biñ dikkee ba agsi la laa taxaw daal ne damaa dikk ba fii jàkkaarloog barab bi borom barab bi génn jàkkaarloog man ñu taxaw bëgg a wax ak moom mu woon ñu ginnaaw dem yoon wallaay lancim lii nettal nañ ko bi ñuy defal barab bi ñu gasee poto bi bagas ko lañ fekk foofu jëmm joo xam ne dara sikkut ca moom ñu ko fekkee bari bi ñu taxaw di ko yéemu mbay luum ci boppam moo ne yéen loolu ngeen di yéemu naa ah, mu ne fii loolu bari na fii fuñ gas rek fekk fa nit ko dara sikkut sëñ ma jaw ne pii laa jëlee ab séeréer di ko dëkk di ko suul biñ dikkee gas fii ma ànd ak moom ba egsi mu teg tànkam ne biñ gasee fii kiñ fekk dara sikku ci kon loolu bari na foofu loola nag du kiimaan déedéet loolu du kiimaan barab boo xam ne keroog ba Cheikh Mansour Diaw laa ko Serigne Touba génnal boppam julleel ko boppam jiitu nit ñi topp muy dox di dox di dox ba agsi rëdd tànkam ne defar leen fii mu taxaw pënd biy jolli ñuy gas di defar di defar ba mu ne baax na biñ ne baax na mu def ay ñaanam dugg ci biir toog waa léegi dama leen di laaj ndax Serigne tubaab ba muy ànd ak seex man Mansour jaw di ko yóbbu ngir denc ko ndax moom doo nga àndoon mbooleem ko yaakaaroon Serigne Touba ak seex boo mën a doon àndoon nga ci jëm ca ca ca mbooloo moomee gunge seex Cheikh Mansour jaw bindikee ba agsi sëriñ Touba dencal ko boppam ànd ak xaalam ne tey jii de lañ koy ganalee ci àjjana ñeent fukki xab bo ne nag te benn bu ci nekk ca ta geen ba nit a mënuñu koo jeexal daan ne Mansour de lu àjjana xat-xat dana ci amul mbooy Mansour de li suñ borom di séddale bu nekkoon ci xottu gerte tim wàllam dana génn ñun kooku moo ñu doy kum doyul nga seeti keneen ku seeti keneen yaa xam ñun kooku nu doy la sëriñ Touba wax ci moom kooku doy na ñu sëkk doy na ñu sëkk kenn gënu ko wax naa ko kooku doon nag mooy way jur Baye Serigne Diaw Mansour Baye Serigne Diaw Mansour ne dann Cheikh Mouhamadul Moustapha ne dann sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma ne dann sëriñ Mbacké Mouhamed ba egsi keroog bis bi mu làqoo sëñ Ahmad junj na ko mënuma ko ñàkk bañ a wax sëñ Mbacké soxna loolu dafa dikk dugg ci biir kër gi dawal oto bi ba ci biir kër gi daal di wàcc daal ne fa mu dem day fekk fu ku ko gën fi mu jógee bàyyiwu fi ku ko gën wax bis keroog ko waxal boppam moo ne fa dem fekk fa ku ko fi mu jógee bàyyiwu fi ku benn waaye dikk taxaw daal ne ma ah rasulullah nag sëñ Tuubaa nag sëñ Mourou Moustapha nag man ko yaa gàtt xam-xam dëgg dëgg dëgg yow amoo xam-xam mu ne ma lool noo koy layale xam nga nit bu ñu waxee rek fi mu toll nii ay nat dalil dafa xew de ay nat dalil dafa xew xam nga yéen nga koy bàyyi xel wala déet loo wax ñu ne la qul haatu burhanakum in kuntum saadiqin bu fekkee li ngay wax dëgg la indi saw lay waa ji wax ma lool ne ma rasulullah nag sëñ Tuubaa nag sëñ Mourou Moustapha nag limal ma. ma ne ko loolu foofu nga tollu mu naa ma ko da nga gatt ma ko Serigne Touba dafa waxoon ci njaareem ne bu len ma geureum geureum len lawbe bi bu len ma xalab xarab len lawbe bi kenn ku nek ñew na fi dekk ma ndabam ma duyal ko ko bam fess mu dem so beugé jël nak ndab yépp nga yamal ko dedet yalla mo bind ndab yi kenn ku nek ndab la bindal légui nak ndab la ndab la la sun borom bindal yow fexel ba ndab lolou nga raxas ko ba mu set nga duy ko ba mu fess nga indil ko ku mi ngi ni donte ab kopp lañu la joxit raxasal kopp ba ba mu set nga duy ko ba mu fees nga dikk tegal ko ne ko ndab laa ngi nii kañ joxu bóoli moo xama ku bóoleem bu feesalee bu dikkee junni bi ak dërëm bi bokk dong lu ñuy tekki sëñ leeral leeraloon na ko <laughs> àgg àgg rek la jeexal jeexal rek la matal matal rek la kon Baye Serigne man Mansour matal na àggal na ba sës na ba fa nga xam ne fa la ko mulul awliyaa yi àggoon ndax ndab li ñu ko joxoon ko raxas na ko ba mu set mu duy ko ba mu fees kon moom ñëpp a yem bu fekkoon ne ñëpp yemuñu du am ñu naan la julli sàngam wala la sàngam boo ko defee bu ëllëgee yàgg anbiyaaw yi mursaleen yéen ay bokk fu ngeen di dekkee te mi ngi fees dell ci téere suñu sooy bu bi lan nga def ba yem ak anbiyaaw mursaleen ndab liñ la jox da ko duy mu fees rek jeex na Cheikhuna al Xadim bismillah wa waaw hmm. jam sun lagi ya dan kiri dan sun taha yo ada man di bisi ci baba ñu mëna nek ñu mëna nek da ta ñu nek ñu nek ñen ku mëna ñu nek ci wajjo bi ñu mëna amé ko da sun taha di so sun ken so ba mu ko nit mu yalla yalla nit waaw masha allah waaw barakallah waaw sëñ xaarim jox na benn firnde ci li sëñ Mbàkke waxoon ne bàyyiwu fi ku ko gën te fa mu dem fekku fu ko gën nee na Muntaxa Gey dafa dem ci sëriñ Muntaxa Xaadimu Rasuul yor benn xasida ak sëriñ Touba sëriñ Touba wax ci lu yéeme mu yor xasida gi dikk ba ci mun taxaa ne ko ah Mbàkke damaa jaaxle mu ne ko loola jaaxal mu ne ko lii jàngal ko ko ba mu egg ne ko sëriñ Touba daal lu mën a waxee lii te yonent bi nekk fi kumalul awliyaa nekk fi moom mu dikk mën a taxaw nii wax lii loolu daal jaaxal na ma sëñ Muntaxa ne ko indi kayit bi mu jox ko kayit bi mu lem ko ba mu sew mu téye ko mu ne ko nee na sëñ Muntaxa ne ko nit moo mun ta nekk yàlla waaye yàlla moo mën naa nekk nit inna allah ala kulli shay'in qadir <laughs> kon nag yaa na wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu